xool lii nga wax ma. Mhm. yii yëpp de wax la lu ba lu baax la. léegi léegi xam nga lu may def. oui dama lay ñawal ci garam bi. ay fii lan ngay def noonu. dara. Hmm. je garde mes yi ngay takk yëpp dafa rafet lii yëpp man awma benn xolu iñaan parce que man gis nga li ma xamoon naa ne yow doo am benn problème. man naka jëkk ma ne gis nga yow bopp dee yow rek la. Mhm. kay ma ren kay man defuma dara. dama yëg dama gëm li yàlla dogal li yàlla dogal loolu laay gëm te gis nga àddina boo xoolee ci kaw yi nga yaakaar ne yàlla ci kaw la nga xool ci suuf nga yaakaar ne yàlla ci suuf la ne xam nga lii tisi la tàllale ma wan la gis nga xam nga tisi la te tisi bii nga xam ne moom nga ñëw tisi bi nga xam non defa te xel man du bu nga taxaw ni kay noonu la déedéet man xam nga lii tisi la te man lii nii nit moo ko jël defar ko te àddina amul solo yéeme jëg lii nii dafa rafet te yàlla moo jóg ma doolal doolal téléphone bi jeex nga sa yee ñàkk nga jot aa ah! yéen xamu leen li doo jot dara nga dul jotati man ngeen di jay bandi man man wes bandi xaw ma ban wayi bii dootoo ko laalati man daal waaru sax da jommi bi nga ñëwee ma ñuul la nga war a xam ne yow Mbappé dootul dara maa xay fii dara nga dootul jotati ah Macky Sall man lay nax man ngay nax. dama leen laal dara te Karim Wade dina dugg ci nii wax ci na leen. son ak son. lan la yemale il faut ñu lijjanti ko. buñ ko lijjantiwul ni ñu man laa wax. loo ci bëgg ma ko ci. waaye dinañ ko woo. yo des ci yow. saraxanteel. saraxas day fukki bool saraxas loo bañ bañ ko ci téléphone baa ngi ni doo ko laal. ma ne yow saraxas day fukki bool ngaa bàyyi xeex bi. bañ bañ di nga ko lekk mbëpp. mënumaa bàyyi lekk mbëpp damay lekk daxan mbëpp chaque jour waaw. tey cere baase bi ma togg doo ci lekk tey jii doo lekk si cere ji. musuma la wax ne dama bëgg lekk téléphone. sama dara nga dul laal wax. tos nga dul laal dara laal dul laal téléphone bi fi moo ko jëmee ci journaliste yi laa ko jëmee xamal leen li xam ni dëkk bi yëpp mu ngi fii fini entre toi et moi dootoo ma gisati. ça n'a jamais ne jeex na takk la wa boo ma tàccoo ma tàccu la. tàccu naa la ba mu neex. soo ma tàccoo ma tàccu la. maa la tàccu ndax ko ma tàccu la wa bul ma tojeel. yow mi yaa may tojal sonal nga ma fàtt nga wax. ma jox ñëw ba fii. dina dugg wax a dugg Karim dina dugg. du dugg Karim du dugg. Karim du dugg. dina dugg. Karim na ñu jël téléphone lay xaar. sa lay xaar. sa yaay bi doo leen ko jël. du ma wax ak ah day defante. waaw defante. ba pare mu xam ne defar naa doomam. ci defar nekk yow nañu xeex ngay nuur ak Mbappé joxe Mbappé bi nga doon Mbappé bul ma Mbappé ma ngay Mbappé bul ma Mbappé yaa ngi may Mbappé. taamee laa yaa ngi may Mbappé ma ngay Mbappé yaa ngi may Mbappé ma ngay yaa woo sa sama téléphone.